asalaamaaleykum mbokk internet yi football TV ziar na len ci aljuma ji lépp lu xamantene ñaan nañ ko suñu borom defal ñuko ñi ñu jitu donc génn aduna suñu borom yeeram len xara len aljana ñi nekk ci hôpital yi suñu suñu borom yëkkati len ñu mëna dox do seen soxla di wax ne liste bi nak liste de 26 joueurs la pour suñu ñaari match yu am solo éliminatoire Coupe d'Afrique fële ci Maroc benn bi ñu war jouer fi ci réew ñun ak li di Burkina Faso stade met Abdoulaye Wade à partir de 19h le 6 benen bi le 9 ñu wara fekk Burundi mu nekk deux match yu am solo suñu ak coach Aliou Cissé nak tay di jakarlo presse di joxe listaam liste de 26 joueurs yu xamante man dinaa si wax sama xalaat ak sama gis-gis donc mu nekk benn liste bu xamante ne secteur par secteur am na lu ñu si war a mën a wax boo demee au poste de gardien de but Aliou Cissé n'a pas changé Edouard Mendy Seny Timothy ak donc kii di Mory Diaw ma gis ne nag Mory Diaw war ñu kon convoqué euh, boo xoolee équipe de France lan moo tax Deschamps woowul Rabiot parce que Rabiot dafa libre da koy bàyyi mu concentré wu jëm am club euh, Mory Diaw aussi c'est la même chose actuellement boo xoolee moom nga comparé ko ak Yvan Diouf ma si am koy Yvan Diouf moo góol di ko tudde Reims joué les deux matchs Ligue 1 française pendant ce temps Mourinho ba tey joué wul fenn dem nañu sax ba mbokk Sénégal moom la ñuy numéro 1 du côté de Clermont parce que Mourinho dafa war a dem seet beneen club on parle de Nantes mais Nantes pour dire jël il faut que Lafond dem du côté de Ajax donc Mourinho sur cette liste bii nii mënoon na ci may bokk concentré aussi si si si donc mercato bi loolu lañ mën a wax au secteur gardien de but au niveau de la défense ñi mu convoqué ñëpp gis nañu ko mais convoqué yi tey jii poste de travail droit moo si gën woowul ben lettre droit loolu kenn xamul mu doon ba pare mu jox explication comme quoi Habib Diarra moy piston bi mais man je suis pas d'accord man mënuma xam ne Noah mo ngi fi ilay Kamara mo ngi fi Mamadou Sané mo ngi fi Alfred Sarr Diop moo ngi fi j'en passe y' a énormément de joueurs yu xamante sen poste bobu moy sen poste ay sénégalais lañ ñoy def seen preuve en Europe tu préfères wo ki xam Habib Diarra bi xamante ne milieu terrain la nga tek poste bobu bu fekkoon sax Habib Diarra dafa def match bu extraordinaire avec ce poste là gis nañ contre Congo voilà am na temps fort am na temps faible da ngay gis ne mën na ko jouer parce que xale la dina mën a répéter les efforts mais je préfère quand même am joueur bi xamante ne loolu mooy rôle mu jouer ko donc foofu kenn comprendre lan moo tax wawul Noah Mamadou Sané ak Alfred Jonku y a énormément de joueurs am na ñu ma fàtte sax ñu ma limul donc foofu d' accord ñu ak lii di Aliou Cissé au niveau de la défense tamit beneen beneen affaire boo xamante ne des nañ ci d' accord mooy Seydou Sano est ce que moo man donc kii di Abdoulaye Diakhaté bi nekk Brest di jouer la Ligue des Champions est ce que war na ju war nañ ko convoquer bàyyi fi Arouna Sangante bi xamante ne mooy capitaine Le Havre te moom moo ngi Qatar ñi ñoo ngi si Ligue 1 française loolu question la boo xamante ne légitime la sénégalais dañ koy posé wu. loolu tamit euh, voilà Aliou Cissé mënoon nañu si andil ay leer par rapport à ça mais le reste Abdoulaye Seck Kalidou Koulibaly na laa ko mën a waxee Abdou Diallo xam nga Moussa Ndiakhate c' est des joueurs d' Aliou Cissé loolu moom leer nañu même si bon euh, tey jii boo xoolee le niveau d' Abdoulaye Diallo on attend plus. On attend plus même de Moussa Ndiaye parce que début de saison du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même compliqué. Tu encaisses 3 buts, après encaisses 2 buts, c'est quand même 5 buts. Donc Abdoulaye Ndiaye Ndiaye, euh, xam rental nekkat le niveau bi ñu la xamé. Quant à Koulibaly moy suñu capitaine fofu de euh, débat pas tellement et Abdou Seck à chaque fois buñ ko wowe équipe du Sénégal, je pense que de muy décevoir bëri donc fofu aussi tamit euh, je pense que l'air non. Au poste de latéral gauche aussi tamit fofu mom Sénégal yépp d'accord. Ismaël Diop moy numéro 1. El Hadj Malick Diouf bi xamantene convoqué nañ ko il est dëgg fa mérité actuellement il est le meilleur latéral gauche si début de saison moom ak Jacob franchement en termes de performance actuellement du côté de Salavia Prague lu mu ñu won dal na xel que ça soit but passe décisif yor na tànk bu neex dem na ba bokk si euh, Golden Boy euh, sans boy yi daax football euh, si maanaam bala doon xale yi moom bokkoon na si donc pour vous dire que c'est pas un joueur bu xamante ne voilà li ko convoqué nii mérité ko au niveau de notre milieu terrain aussi

léegi bu ñu duggee ci attaque bi aussi tamit li ñu gën a seetlu mooy que euh, amuñu ay doubliru Ismaïla ak Sadio Mané man ça fait trois ans nii maa ngi wax ni on manque de joueurs ay ailiers ne dañuy percuter dañuy am puissance xam nga offensivement gis euh, ah, a mën na ko jouer waaye nee il préfère jouer dans l'axe attaquant la bëgg jouer Iliman Ndiaye bu jouer c'est compliqué mën na mën na ko jouer de mais ba tey du am punch bi Ismaïla war a mën a andi wala day indi Sadio Mané mu war a apporter on manque des jours de couloir amuñu Les au niveau de l'attaque kam manque euh, Dia je comprends pas pourquoi woowul Boulaye parce que Boulaye Dia loo si mën a dégg moo a am complémentarité ak kii Sadio Mané un deuxièmement préparation bu de cette année que ça soit du côté de Salernitana def na triplé donc euh, gis a mu dugal but euh, ba pare mu signé Il de Rome ba pare moo ëpp moo gën a am complémentarité ak ak Sadio Mane. donc la moo tax on n'a pas compris franchement le reste xamoon nañ ne dañ pas di que ça soit Iliman euh, Ndiaye Ismail Assar c'était jour quoi maintenant Serif Ndiaye aussi début de saison bu excellent avec gars du côté de donc euh, Étoile Rouge de Belgrade xam ñoom qualifié nañu sax Ligue des Champions donc pour ñi nga xamul franchement ça va Abdelassima yàgg nañu ko waxal même si du côté de Brighton gis ngeen amuñu sama confiance mais dafa dem équipe benn boo xamante Brest de jouer la Ligue des Champions donc ça peut être intéressant de convaincre mais pour moi, pour euh, li ma gën a xool ko bu baax au niveau de l'attaque li nekk sama problème man mooy des doublures de Sadio Mané ak di doublé de Ismaël Sarr maanaam Assane Diaw mënoon na ñëw Simon Mixe Simon Michel bi aussi mënoon na ñëw si deux jours yu xamante ne mënoon nañu ñëw dooleel sa sa sa côté yi donc loolu tamit lu ñu war a mën a wax la ak Boulaye Dia bi xamante ne gisoon naa ne mënoon na nekk attaquant bi euh, bu xamante ne dañ ko war a convaincre de manière générale bu ñu jëlee liste bu Aliou Cissé lii laa si gën a jàpp mooy Yvan Diouf waroon na ñëw défense bi Euh, Seydou Sano ak est ce que moo mën Abdoulaye Diakhate Ndiaye est ce que moo mën Arouna Sangate loolu question la et lan moo tax woowoo latéral droit loolu tamit kenn comprendre ko te mënoo dugal suñu xel yi ne Abdou Diallo comme mën a jouer piston foofu moom nga fa teg te wax waxtaan nga si ak moom loolu de franchement doy ñu ñun ay sénégalais lañu ñoo gis match yi seetaan nañu contre RD Congo seetaan nañu contre Mauritanie franchement je préfère ne loolu mooy postam Keita mu def ay erreur mu jàng am expérience beneen yoon tey mu may def maanaam bu fekkee dafa jàpp ne non waa défensivement parlant il n'a pas le niveau de tekki sur le terrain nañu xool avec le temps il dina progresser il faut mu progresser et y a même pas que euh, il a Noah y a y a aussi euh, Noah Fadiga y a kii euh, Ilaay Camara bi nga xamante ne actuellement dem na Standard de Liège c'est des joueurs yu xamante ne li may xalaat si si si si booy boobu mooy li ñu daloon si dandooy mu dal maanaam dandooy bi ñu koy convoqué xam na ma tax convoqué wuñu ko si jamono boobu Aliou Cissé xam na la waxoon am na gis nga Ilaah Camara instant daf ñu yomb instant yomb na Aliou Cissé ko woo de boy bi dem na équipe bu gën mag équipe bi mu nekkoon daaw Standard de Liège dem bu fa defee ay temps surtout que yow da bëgg ne da nga bëgg def beneen kii beneen génération beneen génération boo ko bëgg def da ngay booy ñu fubal booy boo leen tegee ñu ay Sénégalais yor nañ suñu bët ñoo ngi sàmm bu ñu fi deful dara ñu ñooy nekk les premières personnes yu wax ne ah Aliou a raison ce jour là n'a pas le niveau franchement de l'équipe nationale du Sénégal Si vous tegee Noah Fadiga sénégalais wax vous vous sénégalais wax ay ñu yor ñoo vous championnat xam statistique lu ñu mën lu ñu mën ñu ngi koy gis ñoo statistique lépp si loolu la ñuy pour def vidéo donc daal lii lañ mën a wax de manière générale si liste mais quand même ñoo ngi ñaan suñu borom mu jox ñu ndam parce que coupe d'Afrique bi dañ ci war a demaat dama jëli coupe bi fële ca Maroc loolu lu ma gëm la parce que le potentiel mais lii laa mënoon def tënk si analyse liste bu Aliou dama leen euh, baax a baax que ça Instagram que ça soit TikTok wala tapé seen football TV incha allah di gis suñu logo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen su seen football TV